salaam asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 22 mai 2019 ñu ñëw ci yëglekaay yi yëglekaay yi nag tey mu mel ne sunu lamb fa la ñuy xëyati yëglekaay nag tey dafa xëy ñëw ca Modou Lo ak gëstu bu yaatu waaye ak ka nga xam ne tamit mooy biram ñing mu ngay wax Modou Lo nag ñu ngi ko wane mu nga yor lu mel ne daal ab machine wala boog la mu yor mu ngi ko yor moom di ko pousse sunu lam ne fi mu nekk nii day Modou mu ngay liggéey ca wàllum gaawaay maanaam vivacité ak wàllum force daal maanaam am force ba nga xam ne day loo dajale rek mën koo yàqate wala nga gaañ ko waaye rawatina force bi nga xam ne nag mooy force de frappe maanaam daal mbirum dóor sa loxo fu mu dal dal na fa bu baax a baax Modou ngay liggéey ca loola waaye yamit yëglikaay bi ne yemu ca tennis tamit boole na ko maanaam daal tennis boobu ngeen xam balu montagne sa ba ngay yor di dóor lépp moo doon koy def ak nag loo xam ne daal mbirum sardinaas la maanaam ne ci sam sarde yor say machine di liggéey mu mel ni ki Modou fi mu nekk nii day boo bëggee dëgg-dëgg moom lépp lu jëm ci wàllum entraînement daal foyewu ko mu ngi koy def bu baax a baax a baax sunu làmb moo moo xëy tey dinu ko wax ca Cincinnati nag da ca États-Unis fa la loolu yëglikaay bi nag fa lay amee leneen loo xam ne daal wala boog Modou daal fi mu nekk nii yëglikaay bi ne na day mu ngay rey boppam mu nga mel ni daal gaynde goo xam ne fi mu nekk nii day gaynde maanaam daal yaa moo tàng ne jëri jëri jëri jëri jëri jamono jooja muy def loolu nag ka nga xam ne nag mooy mënaat sabari biram ñu ngi moom mu ngay wax nee na Eumeu Sène day na ko leer ne day digganteem ak Modou nga xam ne nii moo ci am daal moo moom biram nee na pour détourner Eumeu Sène moom nee na loolu jafewul ci Modou Lo nee na loolu moom sax est-ce que gënu koo yomb ci Moodu maanaam daal du loo xam ne lu jafe la moom biram ñi ngi tamit moo xëy daal di ràccal mbërëm jëmale ca kanamam kon day dëll yéeglikaay bi di sunu làmb xëy tey diñu ko wax leneen loo xam ne biram wax na ca mooy diggante Moodu ak Ama coow la bëri na ca biram ne na loolu moom jarut coow ndax nag ñoom ñaar ay adversaire la ñu detaay sax ne na te bés dina ñëw ñu bëre xanaa kay dalut ci jamono ji waaye moom leer na ko ni Moodu ak Ama moom bés dina ñëw ñu bëre dana na loolu mooy làmb ndax ne na gis nañ booy ñang mu la Gaye 2 gis nañ Yékini may fi ay xale saas may Balla Gaye 2 saas may ko Lac de Guiers leneen ak leneen am na fi Bombardier may na fi Modou Lo saas ne na làmb noonu la maanaam joxante loxo la kon jàpp na ne biram moom moom biram daal la mu jàpp mooy bés dina ñëw ñoom ñaar ñooñu bëre am seen diggante ña nga xam ne moom jamono ju Modou amee combat daa mel ni cent pour cent parcelle boobu moom ren doxut ci seen côté sunu làmb nu ko wax muy Papa Sow ak Yékini Senior nee na boo xoolee heure daaw cent pour cent parcelle bi ñoom ñaar moom mbir ma yegg see ci ñoom ndax nag ñoom ñaar daa mel ni daal est-ce que cent pour cent parcelle bi fàttewuñ leen sunu làmb ko wax parce que ren jëluñu avance amuñu contrat ute nag ñoom Modou Lo ñoom ak yeneen mbëri si des daal ku ci ne ñii am nañu ay combat ñële bëri nañ ba pare waaye ñaar ñooñu moom gisaguñu lamb ak i gët wala avance kii moom dafa mel ni carrière am yëglikaay bi di suñu lamb nee na est-ce que nekkul fi nekk nii di di def li ne nii ci carrière am maanaam daal jàpp carrière am bëgg koo tayle ñu ne koo kan la suñu lamb ni du kenn ku dul Gris Bordeaux est que Gris Bordeaux mii lii muy def nekkul du ak le maanaam daal di foye carrière am wala mu bëgg koo tayle ndax nag yëglikaay bi nee na est-ce du jënd jiitay association wala boog dem ay émission émission ca wal fajri ak lii di carrière am te kat carrière ba jeexagul moo tax yëglikaay bi xëy mel ni ku koy dànkaafu wala boog mu koy alerté kon daal giri sunu làmb xëy di laaj loolu ci moom ab xale ngi moom boo xam ne day nee na la ko ñàkkloo kombaam mooy excès de confiance daam seen borom daal daam ne na la ko xañ kombaam ba moom bokk na ci excès de confiance daam seen xëy tey di wax lu mel noonu ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb keneen koo xam ne mi moom mu ngay waajalam surneem wala boog yëglikaay bi di suñu làmb ñëw na ca mooy jëy seen yëglikaay bi suñu lamb ñëw na ci diggante caatu yof ak kii nga xam ne nii mooy Pape Thiam numéro 2 dëkk ca géejawaay mu mel ni nag foofu moom fi mu nekk ni moom jéey moo fa jaar sunu lamb xëy dina ko wax beneen xale moom mu nga xëy di wax ci yëglikaay bi sunu làmb moom daal dina pare na ngir arbarka kayre wala Petit Niang wala Zoro wala Tigre loolu sunu lamb xëy tey dina ko wax moom day Pape Thiam la ko yëglikaay bi tuddee wala boog noonu la tudd benn xale tamit gisaat nañ ko muy wax ay ambition mooy fils de Zallo moom daal la mu bëgg nee na objectif benn la am mission bi mu bëgg daal te bëgg koo remplir nee na lii la foo nga xam ne ni fa la baayam tegoon tànkam di Zallo daal mu ñëw def lu ko raw loolu mooy ay waxam ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb léegi nag dañuy dem ca lamb ña nga xam ne àndul ak dóor mu mel ni ki nag fi mu nekk nii day drapeau de l'état bii day jàppal am na mbir yoo xam ne day boo sàggane moom seen ak bokku ca sunu lamb na jar naa lijjanti jàppal kii di gaskel jàmme lii nga xam ne mooy licence am dañu koo nangu moo tax ak bokkam day fi mu nekk nii wóoragul waaye Mamadou Moustapha seen di selemele itam licence am téye nañ ko ak bokkam itam daa mel ni day narta wóor wala wóoragul duut saane itam lu mel noonu moo ko dal mu mel ni ki ñetti mbër yi moom moom jàpp leen ne day ñu ca bokkee ah dina benn ñu baree bari ndax nag seen see dafa nangu seen ay licence ci ay coow yoo xam ne ñu ngi leen koy toppee waaye dañuy dem ca Leewtoo ba tey ci làmb jooju nga xam ne mooy simple bi rawatina drapeau chef de drapeau sur l'état boobu moom jàppal équipe bu Fatick ba moom bu ñu xamoon li leen di yot dinañu bàyyi li ñuy yot ndax ne daa mel ni day convoqué nañ leen ca fu nga xam ne mooy seen see ba fas yéene leen déglu jàppal seen entraîneur ba fa géey ca la bokk Cheikh Tidiane Niang ca la bokk Fodé saar itam ca la bokk mu mel ni ki ñoom war nañ leen a déglu balaa drapeau sur l'état bi di commencé ca mbuur mu mel ni ki daal tey jii moom loolu moo fi ñëwoon ci ay yëglekaay waaye loo ci mën a dégg daal li ma la mën a xamal day drapeau sur l'état moom kon daal jàpp leen mu mel ni ki moom ki daal kon drapeau moom nar naa metti bu baax a baax a baax ren ndax nag équipe yëpp ñu ngi koy waajal waaye ay Faye nee na tey Moussagna mooy def anniversaire tey jii daal jàpp leen tey la lan tey la àllarba tey la lan tey la ñaata fan ci weeru tubaab tey la ñaata fan ci weeru tubaab aysa aysa ne musa ñaa day def anniversaire ku xalam jaayu ca yaayey tay la àllarba tubaab naan ko mercredi ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai wala 22 mais kon musa Aysa nee na anniversaire bi yàlla na nga ko yàgg a feete ay ati ati at waaye nee na moom képp yow dong moom daal doon leen lay bañ nee na moom fees na palaasam Moussa ñaa Aysa bëggul nga takk ñaareel de Talla Ndiaye ndax ku toll ni Mouhamed ñaa est ce que war naa bañ a takk ñaari jabar lii question bi ku ci xam dara nga wax ma te yàlla noonu takk leen ba ñeent. asalaamaaleykum mbokk yi sur Leewtoo TV ñu leen ñu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di leen euh, safoo chaque jour di kontaan ak yéen euh, ci suivre bi ngeen ñuy suivre di andi seen revue de presse comme ni ñu koy defee chaque jour ma si ànd ak sama mag sama xarit Chéri Teneng Babacar nuyu naa la. Aïssa Faye Chéri Moussa Niang maa ngi lay fay du tey lu Moussa Niang di fête anniversaire bi kon Mouhamed yàgg la fête anniversaire bi loolu la ma sa wax de nee na nga yàgg koo féete nga dund lu bëri gudd fan njaboot gi yokku waaye nag moom nee na moom képp yow képp loolu la wax. moom nee na ñaareel daal waxu ci dara ma laa ñett ak ñeent sax nag ah waaw am na ku koy kuy ñaan fii pour nga am ñaareel ba ñeenteel muy biram ñu ngi nee na yàlla na nga am ñeente jabar waaye sa daal bañ na loolu kon Moussa Niang ñu ngi lay nuyu <laughs> waaw te nag euh, li am solo daal mooy ah jël na combat combat revanche parce que xam na ci li mu jóge am na fu mu bëgg jëm te yaakaar na ne daan Eumeu seen moo ko mën yóbbu fi mu bëgg a dem yaa ngi dégg

xaw a waar des fois duñ la comprendre ne que sportif dafay am défaite ci sport des fois duñ ko comprendre dañuy gis ne rek yow tout le temps da nga di nekk rek ci kaw di di rek tout le temps Mohamed Ndao Tyson waxoon ko te noonu la sport tëddeewul noonu des day wàcc. di nga xam ne parce que daanaka presque. te ba mu des ki nga xam ne ni mooy Papa Sow ak euh, Yékini Junior ñooñu daal daf mel ni pour cent parcelle bi dem na bàyyi leen fi. <laughs> waaw kon bu doon terrain la wala oto dañ naan ñoom ba euh, avant ñu yéeg oto ba départ na pour saison ren bi quoi parce que nag amaguñ combat mais nag saison bi jeexagul lu nekk xaj na fi te diggante xaj yeeg dóor lu ne xaj na ci. ah deux mois moins des balaa ngaa jël combat bay préparé ba ñuy communiquer. waaw pour ñu bëree moom a ñoom Franc ñoom am nañuy combat boo parce que heure bi daa fekk na Papa Sow ñu ngi wax diggante mag Ama Baldé Yékini Junior heure bi daa fekk na mu bëree ba pare ren nag xëy na amaguñ combat loolu mooy lamb sport mu tëddee noonu te réewul nag même bu yi bëgg nañ ñu bëree tam nga xam tamit ñooy amateurs yi soxla nañ leen parce que ñaari mbër yooyu ay champion waada la ñu muy Junior muy Papa Sow boo delloo ginnaaw xool seen parcours nga xam bokk si làmb te yaakaar naa ne itam i combat bu mu bëree bu ñu bëreeloon ren tamit déwén am naa yàq ne dinañ bëree waaw. waaw loolu la ñuy ñaanal bépp sportif rek bu ku ci amul ren euh, combat déwén yàlla may la combat nga mën takkaat euh, ngemb bi rek wàccaat si li nga xam ne ni mooy arène bi. di andi bii nga xam ne combat bi espoir boo xam ne ni macha allah ça promet Babacar. waaw loolu la waaye mën a wax combat bu méttee métti ndax fi nekk ni werante bi mooy ñoom ñaar kuy daan ak ko man ndax Caatu euh, Yoff dafa ne xale bu dangereux bu mën a xeex mën a bëre lool jafee bëreel jafee daan wax dëgg yàlla ku ko am ci làmb am nga adversaire am nga candidat bu wóor a wóor kon moom jàppal ne moom jéy moom loolu mun na ëndi moom mooy korité gi ah Pape Thiam mën a bëreem ko takk weesu na ko ndax yaakaar naa ki nga yu bëri mooy tigoo xaritu yaayam gis nga fa mu ko jël bu rëy ba mu ko daan kon yaakaar naa loolu bu ko dee def moom Pape Thiam nekk xale dëkk Guédiawaye tamit ay nit ne ci ginnaam moo lay won ne daal combat boobu dina naqaree tàqale waaye nag lañ leen di wax daal ay xale lañu loolu mooy làmb làmb lool da cee neex nga boole ñaari nit nit ñi werante naan kii yeey daan ak këley daan loolu dafa neex trop trop ci komba mm. tamit day neex ci amateur yi nga xam ne ñoom ñooy seetaan Babacar dañuy jeexal ak euh, li nga xam ne ni mooy wàccaayu drapeau chef de l'état fu mu toll nii nit ñi ku nekk di commencé say euh, programme mais fu mu toll nii ñi di waa Fatick ñoom ci ay convocation lañ toll ak waa CNG parce que kii di entraîneur bi muy Cheikh ak ki nga xam ne ni mooy Fodé Sarr dañ leen convoqué fële ca CNG ñu war a wuy ji balaa drapeau chef de l'état bi. waaw CNG dañ ñoo yor règle yi ñoom ñoo yor làmb ji ñoom lañ ko dénk ah na nag euh, comme ñoom dañ leen ku la woo moom olof ne dina la woo ku la woo dina la jox wala mu wax la comme kilifa gi yore làmb moo leen convoqué ñoom ñetti ñooñ muy Bafa l'entraîneur ak Cheikh Tidiane Niang bi nga xam ne ci équipe bi la bokk ak euh, Fodé Sarr ah, dinañ wuyu ji ñoom tamit ñu ngi seen mbër yoo xam ne ñoom ah, seen bokk drapeau résultat dina compliqué parce que dañu confisqué seen ay licence dañ ko téye ci seen seew muy ku mel ni euh, Sele xam nga ku mu euh, ci la bokk ak Gaskel xëy na wala boog namu nañu doxale baaxul te yooyu amul warul nekk sportif dafa war a amee niveau bu kawe buñ la daanee nga xam ne lii mooy sport nangu àtte bi boo daanee tamit jóg dema ah, mais jarul def yenn yi ba nga xam ne mën nañ la ci tardel parce que buñ tee sa licence dootoo compétir te compétition bi baax na ci ñoom ndax des fois nga gagné ci weccet kon nag lii li nga xam ne ni mooy war a yàq sa liggéey di ko moytu am na solo trop trop suñu ay frère leen di nuyu Uh-huh. waaw Babacar eh, loolu la ñu andiloon ñi nga xam ne ñooy suivre seen revue de l'arène di gërëm ki nga xam ne ni mooy Mame ci caméra bi Chéri Lébou di gërëm ki nga xam ne tamit mooy euh, Ousmane ci montage bi ak euh, équipe Leewtoo TV bi yëpp ñoom Birame ñi ngi ñoom euh, yàgg ma Ndékoumba Fall moom moo maa ne képp koo xam ne rek yaa ngi nekk euh, Leewtoo TV ñu lay bëggee bu baax mais Babacar damay waxaat joyeux anniversaire ki nga xam ne ni mooy euh, monsieur ñaa di ko ñaanal euh, jàmm ak salaam di ko ñaanal xéewal ak sutura ju bëree bëri bëri di ko ñaanal njaboot gu barkeel mu dund te fekkee lépp yàlla yokk sutura geeg xéewal geeg kàttan geeg mën-mën beeg am am beeg lépp incha allah mais tamit le 22 man dama ci saf sàpp Babacar parce que monsieur Niang bu jugee ci moo jugee si monsieur Niang damay dem ci sama magu bopp muy Kara Ndaw madame Sall kooku bi ma jugee Ziguinchor ba léegi sama doomu ndey la gaa mais bi ma jugee Ziguinchor ñëw Dakar ba léegi ñii ànd dara ñaaw ci 92 ba léegi nii Babacar macha allah moo ma mag mais sama lépp la sama jumelle la sama doomu ndey la sama xarit la sama confidente la sama lépp la dama koy ñaanal yàlla bu mu gis lu ko jaaxal si àddina yàlla na yàlla barke njabootam bàyyi ko ak borom këram musoo ko ci seytaane ubbil ko buntu wërsëg lépp loo yàlla may te mu doon di gën ci moom loolu laa koy ñaanal Babacar amin amin barke bi sa diggante ak sa borom kër ah comme ni nga waxee rek yàlla dëgëral diggante bi xam nga njaboot gi yàlla yokku ko te barkeel ko barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngeen fekke lépp di ko ñaanal bépp doomu aadama parce que àddina loolu la rek sëy moom la ma la rek moo ci nekk ñaar ñoo gis ñu ànd di sëy nañu sëy te yàlla tax muñalante te yàlla tax ndax fu muñ amut njëriñ du fa feeñ waaye foo fekk lépp pare nga dugg fa yaa pour nga def fa résultat day jafe waaye mag ñi ni ñu daan sëy way ñi ñu daan sëyloo jigéen mooy que ne dañ koy sosloo sos mooy fu dara newut nga dem sos fa njaboot te yàlla tax boo jibbee mën na la amal njariñ kon loolu lañ lay conseil sa diggante ak musañaa daal na ci sutura ak yërmande di am chaque jour ci seen côté ci sa côté ci côté sa xarit boobu tamit li nga ci wax loolu mooy àddina ànd moom ñaar rek ci ne ànd te yàlla tax wóolonte waaw du question nit ki dala mag wala yaa ko mag bu ngeen wóolontee rek mën a ànd tey waxante dëgg dina yàggal ànd kon yal na yàlla gën a ànd bi karo ndaw boobu sa xarit sa mag ñu ngi koy nuyu di ko ah, si àddina di ko ñaanal jàmm di nuyu képp ku nga xam ne yaa ngi bëggee Babacar ak Aysatu wala ngay bëggee équipe bu Leewtoo bi yëpp fu ñu mën a ne si àddina bi nuyu naa ñëpp ziar naa ñëpp ñaanal ñëpp jàmm wax Mamadou Kaolack Diallo ca Lisbonne maa ngi koy nuyu di ko ziar ñoom Ousmane Diop xam nga ki nga xam ne ni mooy Mbacke Diagne mu ngi lay ñaanal nga am wuju di nuyu Talla Siri Lebu Ousmane le monteur maire monteur maa ngi koy ziar Modou Mané di balu ñëpp ak di wax ne que Sénégal yàlla na fi yàlla saxal jàmm barke yonent bi sallallahu wa sallam.